Il y a plus de sept ans, j'ai été contraint de quitter ma terre natale, le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur. Cet exil forcé, après un procès arbitraire, suivi de trois longues années de prison, m'a interdit d'aller prier sur les tombes de mes proches. ñii di sénégalais yi daal di wax seen xalaat ci discours bi nga xamante ni candidat bii di Karim Wade amaloon na ko ci altine gi benn fan ci weerub janvier. bon discours bi nag euh, boo ko dégloo da ngay sentir ni que dañ ko tooñ quoi en parce que. fii nous sommes dans un pays de droit te tamit ñun en nu nous devons au même pied d'égalité quoi que ça soit politique ak lu mënti nekk mais dañoo gis ne léegi politique nit ki xamante ne bu jëlee nguur gi rek day mel dictateur la si saa si ndax ce qu'il a expliqué euh, c'est la raison pour la laquelle ñu toog lu yàgg dégguñu ko gisuñu ko euh, à travers les contraintes yi nga xamante ne ni nguur bi moo ko teg et c'est pas nekkul lu xamante ne ni li ñuy naan c'est du fair play quoi en fait waaw mais li ma mën a wax daal mooy que ni. affaire politique bi moom ak affaire élection yi ñuy jëm nañ ko def euh, sur le sur le même pied sur le même pied d'égalité quoi en fait nañ ñëpp tolloo bu ñuy jaay kenn doole et aussi euh, moom je sens que à travers aussi son père ki nga xamante ne ni moo moo fi nekkoon di Ablaye Wade euh, il aime le Sénégal quoi peut-être il ne l'a pas montré carrément parce que euh, li contraint yi ñu ko teg quoi moo tax mais li ma mën a wax daal en résumé mooy que nii nañ nañ nañ nañ ko bàyyi mu exercer droit am waaw mu bàyyi ko mu prouver et que le meilleur gagne quoi. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu waa ji di wuyoo ci turu Omar Diouf Karim Wade munoon na gën a teel a génn ngir wax ak sénégalais yi. Karim dama jàpp ne moom euh, waroon na yàgg a def loolu parce que nit ñu yàgg nañ kaa xaar et mooy loolu daal man daal dama jàpp ne waroon na yàgg a teew. wax ak nit ñi même buñ koy jàpp itam nit ñi dinañ ànd ak moom te gaw ma sax ñu jàppaat ko parce que Karim man dama jàpp moom laa àndal mais dama jàpp ne moom moo téye boppam foofu. man dama jàpp moom laa àndal mais jàpp ne moom moo téye foofu mooy loolu dafa yéex a génn moom parce que boo toogee ba élection ñu ne presque dans un mois ñu ngi janvier février nga door génn di wax tamit mooy loolu. mais tu sais même buñ la xañee euh, yenn yi si sa réew da ngay xaru ñëw ana xalifa. xalifa mu ngi fit dañ ko newoon du bokk mais la la fi def mu ngi àndoon ak Sonko et tout ba tey mu jël yoonu bopp ñëpp xam nañ ne day bokk kari mun na def la même chose bu ñëwoon itam mbooloo ànd ak moom Macky du ko tëj Macky Sonko la amaloon affaire lijjante nañ ko te amutoon sax ak Sonko affaire Sonko mu amoon affaire boppam loolu la rek moom kay moom man dama jàpp ne moom moo xañ boppam ay droit am bu fekkee ne liberté yi. amoon na ko parce que gis nañ ne mu ngi doon circuler biir Qatar waroon na mën a jël avion ñëw wàcc mbooloom gunge ko et mais gëw ne daal xañ nañ ko ay kii ci lu mu ne daal man dama jàpp ne moo fa boppam. mu nekk ab discours bu Karim Wade amaloon ci altine gi ñoom nag ñu jàpp ne nekk na discours boo xamante ni daw na yaram waaye nag di wax ni ak lum si mënti doon ñoom li ñuy ñaan mooy yembale candidat yépp ba benn coow du ci am.